nekkee ba yàgg yëngu-yëngu yu bari tépp tépp ci war nga dellu ca ca suñ maam yi daan def surtout ñun suñuy maam jàngati alxuraan lañu moo tax ñu ñëw ay ubbee jàng alxuraan bu gàtt gàtt jàng nañ fi lu mat ñeent kaamil am na ko jàng 28 yónnee ak liñ fi jàng kon dañuy jàng kaamil yi ñaanal réew mi ñaanal suñu mag ñi ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi ñaanal suñu liggéey mu am jàmm man mobilisation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 sama liggéey mayu ma ko li ma bëgg daal képp ko nga xam ne yaa ngi bëggal président fii ndam nga xam ne man bëgg naa liggéeyal président te maa ngi ciy def sama loxo amul guddi na amul naaj na loolu wax naa ko bi may wax ci samay wax xaaruñu ci président xaaruñu ci ministre am nay formation yi nga xam ne ñoom jigéen ñi am na ci yu bari yooyu xam nañ ko fas nañoo yéen a dem ba xam fa jaay xam nañ ko gis nañ lee bi xam nañ machines yi gis nañ liñ man gis nañu mën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 kon ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm sant journaliste yi yëpp nag